utiliser oh, woo yow ak taw bi di mel nii ah nit ñaa ngi dugg seen néeg yi taal seen cuuraay tëdd si nelaw ngay danaa seen néeg naan bàjjen kaay bàjjen kaay psychologiquement yow taal seen civilisé wu ah tëdd nga nelaw kenn newu ci kër gi yow dongo na ci kër gi toog nii ci digg saal bi naan bàjjen kaay man nelawoon naa ba ba commencé gént. waaw neexee nelaw ah gis nga bàjjan damaa defe ni yéen tas sama njaboot gi ngeen bëgg benn yoon. kii bi waxal ni yow. man waaw wajan mag day am fulla ci boppam am ah. fayda dafa nga ni jëf ju ñaaw ji ngeen def fii jàpp Amina parce que da yëkkati xaalis di leen jox jël fat ki ne dëggatee naan da ngeen di gërëmaat di ngeen di gaaruwaal yéen daal yéen dërëm rek ngeen di jaamu ci àddina parce que Amina leen jox xanaa tey leen fat ki ne joxul dara fat ki ne lu baax lu ne def na ko ci kër gi boo dee mag boo seen jëkkër man mii maguma la da ngay boo amee say jeg danga leen di yamale ku baax day am ngor nit ku baax day am dignité dignité ñàkk ngeen fulla ñàkk ngeen jom ci xaalis ba jabar yi ah, bu yi ngeen jàpp leen bëgg leen a jaxase fii ci kër gi waaye bu am namat gu toll ne bu soobee yàlla moom dana gàddu ay kilima ga ki kakam gàddu ay jabaram génn kër gi abale ndax loolu la fas yéene ngeen am jàmm balaa fekkee na rayante ndax bala lii buñ ko bàyyee mu jàll gi ngeen fi gis ñaar ñu gorante fii ci kër gi muy Amina ak euh, Fakki ne li ngeen mel yéen yéen yéen lii lan la xanaa li seen deret la yàgg sa yéen fu dërëm taxawee rek fëkk leen yéen ñàkk ngeen jom mag day def defi ni mag gor day def defi ni gor yéen li ngeen mel lan la àddina fi leen koy bàyyi. yaa ngi gën a ñàkk jom yow mi dugg suñu giir ñëw toog fii man duma sa morom mooy woo di ko taaj ay desinte deux man faalewu ma la yow bu dee teraanga sax yow gaa yi ko fee def gaa yow yow mosoo mosoo jëndal kenn voile robe yi jënd 2000 francs sax mosoo ko jënd ni bàgg na am solo bu ñu wax nga wax ay vérité naan dama fa dëgg waxoo benn dëgg du dëgg tiimaa ñoo tey man sax naa maa ndax man nga woo fekk ma gëm jëm tëdd nelaw nelawam nga déranger ko yàq ay nelawam di wax waxee beleg wetu Fatou Kiné Fatou bu fi defee lu baax dañu koy wax bu fu defee safaan dañu koy wax bele xewle bele joxe teraangaam bele joxe ay millions am yow loolu la tere ba mu la nga delloo ko xam nga delloo ko danga ko jël bu dam yow seytaane bi yow mi yaay ay bët yaa ngi dégg nag à partir d'aujourd'hui man kilifa laa bu ma wootee ma je moo fi ne moo ñu indi ay teraangam man nangu ko ko joxel ko ko yow sën yow lan la yow tuyee kii yow lan la lu sa problème bel de am na fulaam toog ci kër jëkkëram di sëy fat ki ne am na fay di toog ci kër jëkkëram di sëy waaye yow mi dem ba am cinquante cinq ans ñu takk la nga woye di fooy sa sëy bii ba ñu baabaat la say boole la ak say euh, kii ak say gàddu indiwaat tegal la ci kër gi yaa gën a woye di ñëpp yaa gën a manqué ñëpp ñëpp ñëpp ci àddina waaye dama bëgg nga génn ci sëy xale yi ma boole mu bokk ci kenn dala cee boole man sama sëy mën naa ko rattrapé waa man sama sëy man sama sama jëkkër euh, joxuma divorce normal de man bind ma lettre de divorce de ñoo taxaw ñu xuloo mu mu wax ma ma wax ko loolu moo indi divorce bi te divorce bi divorce boo xam divorce bu dëgër bu dëgër këcc la bu fekkee loo ngeen ci loo ngeen basé wu ndax seen bopp gisa man kër gi maa fi bëggul dara faalee ma la xulli xulli yow xulli ñàkk jom woyati toog ba am cinquante six am jëkkër a jox ay waxu divorce di wax ay chum niti la ñu rek ñii xuma famille bi lu ñu doon ci àddina rek ñàkk jom rek dërëm fu mu leen fekk yóbbu leen lu ñu nit dara. bu daal waaw kan moo la wax ngay jël ay frais de service Orange Money. kan moo jël frais de service Orange Money. bu daal clients yi ñoo ñëw ba ne ma caam ki ngi fii bàyyi bu day jël ay frais de service Orange Money. non bi la wax loolu teg caution man jëluma benn frais de. bu daal a dàqalu wala la bu daal da bëgg a sama boutique bi oui ou non ngay jël frais de service Orange Money oui ou non jël wala wax man ma dégg bu daal. non caam caam doon naa ko jël. mais bàyyi naa ko. da ko jël. waaw bàyyi nga ko. waaw ñaata nga si jël Bouda. mun ma ko compter boobu ba léegi ñi ma ko wax dafa bari c'est beaucoup d'argent xaalis bu bari la loolu nag dama koy génne sa salaire. waay sama ndey Thiam. amul wuy sama ndey. waay Thiam man damay liggéey ah. waaw mais xaw ma man doo ma tëjul man doo tëj sama boutique. orange moo ne laay liggéey guddeeg bëccëg lan mooy sa problème Bouda. dama doon wut bénéfice rek mais baal ma ngi. ah da nga doon wut bénéfice. fan nga koy wutee. ci ay frais de service. orange moo ne amul frais de service. orange moo ne retrait amul frais ah sooy dugal xaalis amul frais lan mooy sa problème yow Bouda. Oh, dama ko xamul woon mais baal ma maa ngi jégalu. du ma la baal Bouda mënu ma la baal dama la yóbbu police Bouda. càmm Bouda dama la yóbbu police. dama la yóbbu police bu baax Bouda da nga bëgg a teg sama boutique. je ne l'accepte pas Bouda lan mooy sa problème. Bouda dama lay dàq. Bouda da ngay dellu fii da ngay dellu ci buntu bi dama lay joxaat la nga solal nga dellu ci boutique bi. gardien ngay doon léegi. càmm yàlla sax day jégale maa tooñ jégal ma. nga ne lan. man yàlla sax ngay wax càmm yow. baal ma càmm plus plus ah Thiam plus envoi égal. orange money orange money ah loolu laa bëgg nga koy wax. merci Thiam plus envoi égal orange money. foofu laay foofu ah jéggal la. mais que ce soit la dernière fois. bul jëlati benn frais de service. dootuma ko jëlati si àdduna orange money dootuma jëlati frais doo jël benn frais de service. oui oui bu fa client duggati ni ma bu daa. ah dafa jël ay frais de service bu daa dama lay tax quoi. jeex na non am na bonheur tey. am naa bonheur am naa bonheur tey naa bonheur quoi. en tout cas daal li ma la wax <laughs> c'est très clair. man Orange Money laay liggéeyal. Ah. boutique bi Orange Money moo fi am. Mm. leneen amu fi. Mm. donc bul jëlati benn frais de service. bis boo ko jëlatee bu daal. Mm. Orange Money dootuma jëlati frais de ah. service. te sa laa koy jële ma wax lu leer. loolu nag. c'est bon on est d'accord. waaw kon baax. liggéey. bu laa dama liggéey waaw baax service boo ko jël si foofu laa yem nag d'accord orange amul benn frais de service waaw dégg nga baax li ma la orange amul benn frais de service laa wax waaw foofu laa yem we orange ma ne laay liggéeyal mu bëgg ma yàq kii sama xañ xañ sama wërsëg ak li ma ci am lépp ah non ça du ma ko nangu bis bu ko jëlatee ma génne ko ci salaire am waaw salaire am a ngi nii li fi des li mu fi dese bariwul waaw yàlla baax na ba tuuti nga fi dese nga jëlaat ko fi rek ah ma dugal ko ci sa salaire nga jeexal tàkk zéro franc ngay fayeeku à la fin du yaay kan waaye wala nga dem police rek un point un trait foofu laa yem. ah Fina Closet day kontaan naa jot naa ci sa cuir fi mu toll nii maay bañ. Thiès man doo nga fi yor saag cuir original kontaan naa ci yow billaay walaay yàlla na sa jàmm yàgg borom Amérique <laughs> lu baax rek dangay jaay. <laughs> yaaye ah, ah, ah, waaw billaay sama doom ji Fatima Zahra Ndiaye ne ko maa ngi ñëw ci moom de. dama am produit yu baax yu ma ko mën a yu ma ko mën a may. waaw baax na waa xaaral ma wax ak sama wujj bi <laughs> nuyu ma sama doom jooju. waa Ndeye. maa mm-hmm. ngi nii toog euh, yow amul dara lu la xeeñ fii bi ma duggee ci ah. saal bi. looloo tax ma ma kii nii li ma tël nii lan la xat gi. lii la tël xàmme woo. ni baby met la yow. Ndeye da nga xam baby met. foo ne man ci réew mi laa dëkk nag. ah Ndeye yow foo xamee baby met. xale ma ko jaay. ñaar parfum beeg euh, kii bi euh, poudre. tombal ma ci ba ma delloo ko ko. bu ko waroo ko rek. nday dama mm, mm, ko sentir moo tax ma jëndal la ko. Ah, waaw waaw ni woon ni fajal nga ko tey. nday lii de baax baax. man ngay wax lii nday poudre nga ne man koy poudre sama kanam. bi lii pour dem ci kanam. kon yow wéroo nday xamoo li xew. bii lépp lépp lu muy laal xale mag ko neexee laal ko sax man sax dama koy laal. kon naa ci laalal ba ko ko la ko la ñam. nday dee ko wis ci euh, mbaaj xale bi dee ko ci wis puudar bi ba pokotaan daa am ay picc. baaxul ko ci def ko ci baax na ci de ndax man day def sama gi sama kanam xool. moom laa ci def dégg hmm? bi sa loxo yi bu woowee comme ni nga koy diwee xale bi nii vaseline bi boo ko jëlee nii day nooyal say loxo de xam sa loxo ah, ah, ah, samay loxo dafa woo. ah sa loxo yi kat. déet samay loxo naa xamal li ma la wax rek. de ko ci diw man xam mbaay ma may la vaseline. waaw saabu bu la neexee utiliser ko man waaw baax na am problème. lii dafa baax de. waaw bébi métti nii. ma as nag booy maye da nga ciy gaaw bu ko dee maye sama. ah déedéet nit nag booy maye da ngay. waaw ma lingette bi jox ma ko li ma la may lingette bi bokk ci jox ma ko. damaa soxla lingette bi ndey. mosin bu ma ma kii woo damay. foofu nag demal nga toog may nga ma ba pare nag demal nga toog. demal nga toog demal nga toog. déedéet li pour sama famille la. nday man maa la ko may de. ah maa may bi jeex na ma ko joxee nga ci pare as man ko cant ak ngërëm ñeel na la mais déedéet waaw xool nu may ranger saag bi sax dafa neex a voyager. man sax damaa xam lu xew man mi leen bokk. xamoo lu waaye man sax dama ko xam. waaw nan nga mën a ñàkk xam lu xew parce que ñu woo ñu. gis nga téléphone yenn heure yi fekk la ci yenn yi doo du yow da nga da lay dofloo. ko doon xeexalati wa bu ma xeexal. ba léegi léegi coup bi léegi la. waaw coup damaa woo. Eh, damaa teg sama boutique bee. waaw caaxaan ma foofu. waaye yow waaye yow lan ngay woote lan loo xam. lii moo gën a séré ay boutique mu naa ma demaa teg sama boutique. ah eh, eh, wuy ma ñàkk nga fayda bu dee da nga doon xeex ak sa jabar yi nga wax nu xam nu mu koy arrangé bu mu sonal nun dañuy liggéey non non gis nga man non non man damaa jaax lii bu amee lan la lan léegi lañ ma woo léegi yow xam léegi caam ah, nan la waaw ay lan non man lii bu non man sama problème mooy bu amee nu ma koy eggi jabaram laa wax quoi ah, léegi lañ ma woo waaw waaw nee nañ man ku nuñ ko koy waxee mais pour eggee ko ko man loolu sama problème. lan nga yeggee yow la yow lan moo xew yow ba yow lan la. waaye nee nañ waaye fa mu demoon mission jëkkëru bàjje dee na. lan la leen. lii lañ ma léegi léegi léegi kooku léegi xanaa yow nga eggee ko ko. kan moo ko yeggee. loolu mënu man càmm ma koy ba may wax la kan mu de bàjjen mi ak rabam yu bari ku ko wax fi moom eh. est-ce que duñ ko njëkk a suul jege ji mënuma wax lu information bu leeru li may wax dafa leeru sama bopp kan waaye woo nañ woo nañ militaire yooyu dee nag yooyu loolu mooy lan nee nañ dee na nuñu eh. dee na foofu lan a dee lan la nu mu dee waaye benn dañ leen ambiskat la xaw xam nga dafal ndànk gis nga da tam tàmm ay yëfi dof information dañ koy lijjanti ba mu leer mu leer ni dee na ñu xam ni dee na ñu xam nu mu koy waxee waaye xëy ni dee na te deewul du du wax de. waaye mais man ay militaire ma se seen monsieur Ba man leen wëy. waaw yaa ngi dégg ñu présenté wu seen présentation yi. Hmm. affaire yooyu ba yaay goro xaw ma jaar ci turam ma ne waaw. waaw ñu ne ah. bon li yàlla di def dee na. jox ma numéro xam nga li ma lem xam nga li ma. jox ma numéro waaye téléphone baa nga fële ma sànni. xam nga numéro moo téléphone baa nga sànni. yow mooy lan ma ni leen xam nga booy yooyu muy jaay rek estrom wóor na ma ni ñëpp dañoo tëdd kam ful muy jaay yooyu estrom yooyu di génn ñu rey ko yooyu la yëfi dafam yooyu yooyu lay def. ba ba nit ba nit ku dee nga wax. waay dee na. nga dem la lan mooy sa problème loo ciy wax estrom eh, eh, ak yooyu lan mooy sa problème xam naa ko lu baax man fekk ma ko mais léeg-léeg man ñëpp dañuy tëdd kam fule mooy yow fi ne nga yeggee ko kan moo yeggee kan ah, moo yeggee man ngay wax moo yeggee du yaa jot information bi donc ko yeggee yow dëj bi moom mën nañ koo régler loolu amul problème. Ah. léegi li ma bëggoon ñu ñu xool naka la ñuy organiser dëj bi. Ah. naka la nag ku dee kenn du ko dajal. waaw waaw nag waaw waaw nga ni ah. dem dar daral fii seet nagi berger yooyu wutal ko nag bu baax comme moom ci fitna rek doon dox def dëj boo xamante ni dëj bu spécial la toggal ko ceeb comme moom ceeb bu xonq la bëggoon mu def ci ceeb bu xonq def ko orne yooyu ñuy def nii ba bu ba fa mu tëdd taali loolu rafetul. defal ko ay zirik defar ndox mu sedd ataaya ji takkarnaase bu deewee taali loolu dëj la. xanaa da ngaa kontaan ci dee gi. nan ji kontaan dëj jàmbur ñu waxul yow kii deewagul nga naan nañ dem nañ dem kii di wax waxi tamaate ak ay ay ceebu xonk. waaw nit ku dee dee la wax ni moom dafa bëggoon ceebu xonk ku ko wax. wax na ma ko ba taay fii. yow. yow ku bon yaa mooy mooy yow. kii est-ce que mi ngi lekk kii du nit. yow kii yaa ko fi indi yow. kii mi ngi lekk këram. ah kan mu dul lekk këram. mais kii lay lekk kii si biir ay dëj lay lekk. kii est-ce que sérieusement ak ak dëj lay lekk kii kii xam naa ko bu baax yow yaa bon néew bi kan lan wax lay ñëw. waaye yow waaye yow ñun waaye yow waxi néew yow. ut ko yow doo doo nopp yow. kii quoi yow kenn ngay arrêté naan ay waxi néew ak ceeb bu xonk. ak kenn la dee. ah ku dee xanaa kenn du koy indi. nga bi dafa leeragul ay waay mais suñu bopp waaye ñun léegi man man ñoom seen bopp léegi sama problème sax man. dem sama problème dama ne na ana néew bi ñu ne gisuñu néew. ah man leen comment gisuñu néew. mooy li ma la wax day jaay day atu obi lañ ko dóor mu tas. loolu loolu leen man loolu damaa leen. day tas moo tax gisuñu néew. loolu ci arme mooy évasion de néew. moom moom néew yooyu muy def la buy nuyoo fii di dóor di jàng kër loolu lay def génn ñu ne ko xës ëpp mu tas kooku ëpp kuñ ko doon nu ñu gisee néew. ëpp lañ ko doon ëpp la. ah obbi ah. wala obbi la obbi la c'est que nag booy bi nag dafa doy waar mais dafa ne ñëpp dañuy tëdd tëdd ci ngeer yi moom muy génn naan nii c'est que sax man sax la gënoon sonal ah obbi la obbi la war a doon obbi ci sa affaire resto bi bi laa wax rappel dama kaa bëgg a firi ah, rappel nga ni. sa resto bi. foo ci tool xam nga yow dara ñorul. temps yi rek xam naa léegi ma commencé tontu ci am ne daa am ay lu mu war a defal foofu noonu. xam naa léegi rek léegi ma commencé. mais farlu ci commencé nekk ci dara sax. mën naa ko gën a yàqamti. mais toog ci kër gi daa mel. dama gis sa comportement ak jabaru booy muy Kiné ak Amina. gis naa ne da jël mhm. mhm. part. man mii yow mii parce que awa foo demee bay jël engagement naan da ngay toogal ay Kiné di bàyyi Amina man mii di sa mag sax importance bi nga jox Fatou Kiné ba mu di la conseiller wala dara man permettre loolu te pourtant mag ak yow ñoo bokk benn deret tey jii nii moom li mu lay conseil man mën naa la ko conseiller mais yow lu la waay wax rek nga gisee ko neneen et tu réagis mal problème boobu kese kese kese nga am awa te bu sunu mag la ay jabaram. waroo xool ci kii ngay féete wala ci kee ngay féete dangaa war a yemale ñaar yëpp xadi pourtant demeewul noonu sax de man kin ne dama ko yërëm gisoo kër gi ñoom ñëpp moom lañ jox toor kenn faalew ko looloo yokk tax man may dem di ko toggal mais man awma ku may farfarloo dama fekk ni man may premier njëkkeem te moom daf may woo di ma conseil di waxtaan ak man loolu kase moo tax su ma ko gisee muy togg ma dem di ko jàppale mais du la ne man moom awma ma parparloo ak kenn franchement. Ah, ki ne ñàkkuñu ko bañ a faale de moo fi indi jikkoom ba mu neex ko changé waat jikko bi te man moom xam nga ni ma mel man boo ma wanee lii ndax suba nga ñëw mel neneen damay effacé wu ci yow. gis nga man mënatuma am ci yow confiance ndaxte bañ ma violé yow laa ko njëkk a wax amoo looy def lu dul dem sama yaay di ko ko wax ba bi kër gi ñëpp dañ koo mujjee yëkk man loolu rek a tax may bàyyi ñeneen ñi di ma conseiller te yow doo ma man moom mënatuma laa wóolu moom. mais aw man bu ma xamee sa métier dem wax ko sa yaay c'est pour que ñu trouver solution la mais du leneen mais bu fekkente ni yow dangay am lu la metti denc ko sa biir xol ban importance la am loolu noonu yëpp pour aider la. mais man maa bëggul woon ñu yëg ko yow instant bi yëg nañ ko utuñu ci benn solution moog bañoon koo yëg ñooyam. Ah, waaw bëpp kii ah, la. waaye ni ngeen toogee fii day xanaa gisoo day bis. ah pourtant léegi laa koy wax xarit ah xarit chéri amu naa la. kii na sa robe bi daa rafet. naa leen ci jëndal yéen ñaar ñëpp. c'est que bi ñu indi woon dafa xaw a gàtt moo tax mais wut naa wax naa maam si wutal leen ñaar yu baax ma jox leen ko cadeau. du dëgg man xam nga yéen ñaar laa am. te nag fii laa toll dégg seen waxtaan. xadi man merew ma la de te su may changé jikko it du ci yow mii laa koy changé. ndax wax dëgg yàlla wujjeewu ma ak yow ba ngeen sant bokk ak sama jëkkër jee benn deret ma nawloo leen lool nag respecté leen lool. dafa fekk ne man su may wax damay wax li nga xam ne moo am du ma nëpp nëppal bëgguma ko ñëw di farak man parce que tout simplement damaa am wujj ci kër gi may may may may may may jox nit ñi xaalis wala di neexal nit ñi wala di tagg nit ñi te sentiruma ko yow maag yow dañoo bokk benn kër. gis nga awa mi xale la waaye du xaar ma ni ko jëlal bale bi du xaar ma ni ko kaay toggal ma du xaar ma ni ko lenkalil kaas bi mais yow xadi da ngay rek teg la say tànk li la sa yaay nag nangul man duma la ko nangul te bés boo séyee ci benn kër kenn du la ko nangul dëgg la tubaab yi sax ñoo la gën a tubaab te pourtant dañuy jékki-jékki defaral seen jëkkër yi café jox leen ñu naan mais yow xadi da naan café sànni fee kaas bi mais ni nga ma koy waxee la te man kenn du ma jox ay ordre loolu moom amul sa xaama dem te ñëw. waaw mais parce que ni nga ko ni nga ni nga recevoir sama message la yow damay wax ak yow nga may jaay dangiral wala may wax ak yow ngay fas sa kanam. à la fin lan nga bëgg ma wax la la woote boo indee jàmm ma indi jàmm nga indi leneen ñu nekkaat ko ci rek. kin ne pourtant man waxtaan naa si ak moom ba pare xam naa loolu moom kenn dootu leen ci déggati. kii dafa fekk sama partenaire la. waaw ba ma ñëwee ci biir kër gi xam nga damaa lonkook yow. ñuy kaf di fo di ree man nee naa leen duma la mere maanaam même su ma waxee li nekk sama xol su ma wanee ginnaaw pare naa ci ndax buur dama leen dénk yéen samay raq ngeen te maa ngi leen di xool soo leen duggee fenn dama leen xool yéen seen seen dama koy jël di ko déverrouiller di xool ndax koo leen di waxal ak koo leen dul waxal di kon man xam nga man bëgg mm. am problème ak waa mais su ma waxee yéen ci fulla ak fayda parce que ànd nag noonu la xadi nit ki soo amee lu la metti da ngay jàkkaarloo nit ko lii moo ma metti doo toog fenn di ko njurumtu man du ma njurumtul kenn xadi def ma dara ma toog ci ruq di ko jëw wala awa def ma dara ma toog ci ruq di ko jëw damay ñëw jàkkaarloog yow maa yow ñu màttante gajjante suñu paree wax ji jeex waaye ki ne ah. nettali histoire day indi histoire wala yi xam ne nu ñuy def nag wax ji jeex na nag sama chéri koko yow nee naa su ma juree doom yow laa koy tuddee mère sën dama koy teg fee tudde la ko ndax sa maandute neex na ma daal man mi premier njëkk bi da nga maa laa gën a bëgg daal xam nga léegi wuy ma awa jugal nga waasal ma jën xadi namm naa sa ñulug <laughs> dimbala ma tey tufe laay togg sa ñulugu tufe moom namm naa nekkatul wis kese léegi mu tontu ko yow Fatou bàyyi fekk intérêt xamoon naa ne jubóo bi jubóo bi intérêt tax nga koy def waaw kaay ñu lugal ma cufe bi rek yow eh, jubal rek nga toogal man tooguma bi ne robe bi da nga koo a bàyyi baax na merci waa kii awa chéri tata waaw jugal na yow waaw jugal ma waaye tamit bàyyi ma <laughs> yaa baa doole yow laay dem may ko xaalis waaw demal eh, nga jaay xam fi nga may fekk ah, yow waxaat rek mm-hmm. waxal. comme yaay kilifa gi te jotaay yu mel nii dañuy sàkk kilifa njëkk a wax yaa ma ci ëpp expérience wallaahi man diis sama loolu moo waxal rek. déet yow xam nga yow déet mbir mi yow lu mu nekk nekk bàjjan sa xarit la. moom mm-hmm. yé ko ko rek wax ko ko. Ah, wax leen nag ma amul jot. waaw damay dem wax ko rek. ah bu hmm? xaalis la ma def tey. bàyyi ne di <laughs> jàpp na. waaw waaw mu ngi koy ne nii balaa tubaarkaar baax na jàpp na waaw. ko rek. Ah, ko wax da ngeen di këlam këlamee nii ki naan wax ko ki naan wax ko ki naan wax ko ngeen mel ni ñu gi wax leen man lii bett ma woon lii waxoon nañ ma boo toogee ci kër ga ay quelque temps génn kër ga lii amul négocier amul kii naan wax ko kii kii naan wax ko kii ba ngeen jël Ndeye Ndiaye def ko témoin nii ah. de def nday déglu rek ah. li ngeen dara rafetu ci dafa ndànk rek ba ma man je je son son ton sœur ah. yow man sa bàjjan laa yéen boo la ma génnee ci biir kër gi man fan laa jëm waaw waaye wax leen fa wax leen fan laa jëm bu ma liggéey ku koy fay ah yéen yéen rafet gàcce la sax. wax dëgg yàlla mbiru génne mënul ngeen ma cee taayee. waaw ndax damaa damaa amul jot. sama problème yaa ngi nii ma war a lijjanti ci ak xew mi ah. aw ma temps. ah kenn génnewul kenn kenn génnewul kenn kenn mbir mi nag comme moom eh, eh, gàtt wax gudd wax. war a gàtt nag ngeen wax mu jeex benn yoon ñoo xam ne fi ñu jëm man ko dalañ féete ñun ndax damaa xam ne rek ah. waaw waaw inna lillahi inna ilayhi rajiun waaw waaw xam naa moom moom ketaar ketaar ketaar loolu na xale bu yaru goro bu yaru te baax am jom dëggu ci bopp fu mu gaañoo yow waaw xam mbir mi di na metti na ñëpp waaw waaw waaw yow. ba bokk ci famille bi rek. xew mi la xew mi problème bi. waaw déglu sama papa tamit déglu leen ko mu wax. waaw moment de ci instant bi tamit li libal bi mooy tax. léegi nag yéen préparé ngeen ba benn yoon mu gën ngeen toog fi ki naan wax kii jeex na. affaire bi jeex na. waaw ku boppam te fa mu dem demalu fu woon boppam waaw réew mi ko taxoon a dem hmm. waaw ndax ñoom bu nuy dugg dañ koy waat léegi la ñuy si ñuy waaw kon mën na ni jàmbaar dem na. waaw waaw goro bi rek. kàlla. binom ba mu demoon binom rey nañ ko. ba binom moo dee eh waxal ban binom si xew sama xew mi lay binom di deewee lan la lan la xew la bay gaañoo heure bi. léegi man sama ñaw yi na laa ko def ak xew mi. léegi baas yi ak yooyu lu ma koy defal. binom lu tax muy dee heure bi ayo kan moo rey binom laa wax ma ko. tey leen tey leen. par ku rey binom. obi obi ko rey obi obi nañ ko nes tësal bu mu jaw kaw ba xew ay tuuraay mënu napp nga naan nañ ko nes tësal yow yëkk yi dégg nga xay wax ay xew xew lañu nañu denc ko dina xew bi paas bàcce dafa naa bàcce bàcce bu tey ooy dala ba ba sama daal yi ma jël xale ba yàlla melen melen ma ndox melen ay eh, gis nga yow na nga ñuy sonal fi nga ñuy rek nga ñuy rek ay taw du ma kii nga jël ko papa yow yi ma rek la la taw sa mbedd way parce que dafa nak parce que dañ dañoo ngay gëdd waay waay yow duul waay yow waay bi sama jëkkër waay waay sama jëkkër ita waay ak ma bu ko ak ma sutura ay waay bi ñoom lu ko rey ay waay bi ñoom ni lu ko rey jàmbaar dara jàmbaar dara inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin zaa'iqatul mawt yéen woon ma bëggoon laa ilaaha jàppale ma laa ilaaha bàjjen dalal bàjjen xew man xew mi laay wax de ba ba tey ngeen di lim may dafa gi dee na waaye dee na waaye waa jàmbaar dee na yóbbu na man sama rajo yóbbu na ma dugg na sa jabar ci salle bi papa génnal ci salle bi eh, téléphone lañu ko waxee oubien oubien ko rek dem dem dem dem dem